Mati Lo président fédération des opérateurs de la région de Louga Fenech si tey am ci mbégte rek ndax mbégte mi mooy du tey la ko jëkk def depuis mu nekk fi daf ñuy nemmeeku ci saa su nekk tey mu ñëw nemmeeku nu ci campagne bi sori na donc day nekk mbégte waaye mbégte mi ci am moom am na mbégte mu ko ëpp parce que mu xool jal yi ci situation gerte gi ni ma Sénégal da am mbégte wax naa ko baaw léegi. ne yow mu dëkk Louga ak yow Modou Diagne Fada mi gëtee Sonal Sonacos SA seen xol sedd na ñuy seen xol sedd na waaye loolu lépp li ko lal mooy opérateur yi nga xam ne ñoo ñoom laa wax seen kàddu muy ñu am jom ñu gore ñu baax pourquoi moo wax loolu mooy am ouverture campagne dañoo dajo réunion ak présence Dame Touré ñu ne ko Dame day engagement yi ñu jëloon daaw dañ ko renouveler ren dañ def lu raw lañ defoon daaw ñu def lu raw lañ defoon daaw kon opérateur yi jërë ngeen jëf li ngeen doon waroon def def ngeen ko wax ma xol ñëpp sedd nañu. di gërëmit it daam ture ci ubbi kaayam ndax nit ki am na nu mu doon bindoo liggéey bi mën na am jafe-jafe ndax moo fi nekk nekkal fi Sonacos mais dafa ubbeeku ubbeeku ci opérateur yi biram tëju ko ku ñëw wax ak moom loo mu tontu la la xam ne moo ci am kon nag moom it am na jërëjëf donc ni mu demee nag mooy directeur général ñu ngi lay sant di la gërëm ñun Louga ba ni xale ba léegi ci filière bi leen ne mosuñu ko génn lu ne fekk nañ fi lu nekk xam nañ ko waaye gis nañ ne ñi fi jaar ñëpp li nga def région ko kenn mosu ko fi def pourquoi mooy dañoo amoon ay doléance yoo xam ne ay jafe la saa su nekk dañu yóbbu gerte Jurbel di facturé Jurbel di jëri seeg Jurbel fond bascule bi amuñu ko woon donc yu yëpp ñu dajale ko am ko ren am service d'achat de graine li nga xam ne moo gën a jafe loolu yëpp ay doléance la woon xam ne satisfaire nga du merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. ñëpp war ko dégg ñun ay sénégalais lañu du ñu dëkkunu benn réew bu du senegal ñun lu ñu bay fii lañ ko war a jaay di ko jariñoo suñu doom di ko jariñoo suñu soxla di ko jariñoo ñeneen di ko jariñoo lii bu ñu ko nalee diw sénégalais yi donc ñoo koy jariñoo kon lii baax mooy ñun ñëpp dooni opérateur dooni ay responsable nañu ubbi suñu xel àndandoo doon benn am beneen jëmukaay bu wuuteeg bi ni jëm ndax li ci njàngat mi daaw bi ñu bàyyee gerte gi dem. bi demee ba jox jiw mun opérateur semencier la dañoo dem ba kilo gerte mill francs lay coûter jiw gi yokku donc loolu wane na ne yóbbu gerte intérêt nekkute kon nag war na war nañu wax waaye nag dafay damay wax ne ku def lu mel nii nag liy soññee bi ba ëllëg ñeneen ñi gën a yokku wax naa ko directeur na ko Louga da wutal benn prix national décerné ko Louga remise waa Louga yëpp kontaan yenn rek xam ne lii ñoo ko def te ku liggéey dañ laa war a wan ne liggéey